Thank you. Euh, Amérique dafa am euh, dîner de gala bu mag bu fa am ak fashion show boo xam ni waa CSD euh, ñoom ñoo koy organiser CSD ñoo jël tailleur styliste yi nga xam ni ñoo ne ci réew mi bokk na ci Bara Couture bokk na ci Bamba Partenaire bokk na ci Bouti Limite ak yeneen i tailleur yoo xam ni ci biir Sénégal la ñu nekk waaye ak yeneen i ndaanaan yoo xam ni ñu nga Amérique ak Gambia ànd ak ay ndaanaan yu toll nii ki nga xam ni mooy Salam Diallo bokk na ci Daba Sey bokk na ci Mary Ndiaye ak waa Seng Seng Tarkal Tarkal géwal mbaay mm, ñu fay waajal uh, ay ñaari bis yu doy war ñaari bis yu mak ci New York City donc ñu ngi ci wo ñëpp rek kep kuy doomu Sénégal kuy doomu Gambie wala doomu Amérique ñu ngi la ci wo wax September ni septembre 23 uh, ak septembre 24 ah ñu ngi wo ñëpp rek ngeen ñu fekk suñu ci man Aba mangi ngi ci biir ah mama Gassama ma ngi lay kontaane bu baax mama Gassama donc di ci wo wa sen di ci wo kep kuy wala ngay africain ñu ngi la ci wo bu bah, kabah baax lako baax wajal dana neex dana metti te dina yàgg acca pare nga fay gis souvent. am na fi nekk fi am fi nga toog voilà mhm. da ngay xool même eh, libéraux xool à droite lañ. voilà mhm. da xool euh, mais ñu bëri nag comprendre dañ ko dañ ko xam. mais ni président Modou Diagne Fada nga xam ne je pense su ma juumul moo njëkkoon nekk deuxième législative moom moo nekkoon président groupe parlementaire mhm. bu bu. Qui ko mais mon toujours su ñëwoon de doon donc mon euh, amnésie ci un peu expérience. Mm-hmm. donc loolu loolu loolu mooy mbir mi. voilà maintenant euh, mun nañ comprendre effectivement coalition yi. yoo xamante dañu demoon élection ñu ñew ku ne am sa groupe. Mm-hmm. dal di ñew defar sa groupe. waye jël. mais bu ben benn coalition. Euh, yeewi yeewi wàllu am ñetti groupe non xam nga man yeewi wàllu intercoalition la mais ñaari coalition yi wuté la. Mm-hmm en fait, dans, du, du, du, point de vue pratique, il y a eu deux coalitions au niveau des élections. Amna Wallou, n'y gis nañu fii ci Wallou et tout ça. Mhm. Amna na mais euh, c'est vrai que y intercoalition une intercoalition def boo sur certains départements et tout ça mais liste nationale c'est cette liste-là. liste là mhm. tu peux comprendre a deux deux coalitions C'est ce que je ko comprendre. Mhm. mais euh, yooyu ñu bëgg a encore une biir. loolu moom c'est inacceptable waaw parce que loolu su boobaa waaw voilà loolu la mën a indi non loolu su boobaa partage du gâteau ko mën a tuddee hmm, séddoo parce que xam nga waaw parce que amul ay privilège xanaa si ay non léegi na la euh, euh, parce que damay dégg ñu naan woy fi fi temps de parole bi sa n'a rien à voir ji nga euh, assemblée na deux façons de prendre d'abord dañ ne le débat est libre dañuy ñëw voilà loi la kan moo bëgg a wax nga yëg voilà dañ la ne affaire bi quinze minutes am na fu muy toll mënul romb cinq minutes loolu mooy la mais nag moo assemblée bi moom parfois ñu ne woy deux parfois teguñu ko fenn parce que mooy conférence des présidents de débat maanaam par exemple premier ministre dafa war a ñëw on va poser question question. on va mhm. dire on va dire on va organiser. si commission organiser, voilà. nous mhm. suñu organiser président de groupe ak non inscrit képp en même groupe dañuy leur taille. Mhm. c'est-à-dire que plus de rien à voir non c'est pour être présent si si. ce n'est pas un organe délibérant délibérant c'est

groupe parlementaire ça coûte xam nga groupe parlementaire mënul ñak et c'est normal aussi hein, waxuma ne loolu c'est excessif mais su dee da nga maintenant diko di patch patchal c'est comme si tay benn bokku yakar lu mu am député mu jël chaque 15 député mu dag ne benn groupe ngok c'est est-ce que donc waruñu xoolaat si nombre député buy composé ci mhm. Mhm. est-ce que waruñu xoolaat si nombre de député yi imposé groupe parlementaire est-ce que jàppoon ni war def la ñu xoolaat ko par rapport ak texte yi non ñun par exemple on avait posé mu doon dix parce que groupe parlementaire c'est une affinité politique c'est-à-dire que si nous par exemple ñoo coalition une coalition, assemblée nationale eh, war nañu a des def parlementaires. groupe parlementaire. Hmm. par exemple si l'opposition une opposition def on va assurer avec des groupes parlementaires en amplifiant une incidence. mais hmm. parce que groupe parlementaire femmes est ay fonds de fonctionnement groupe parlementaire bu ne dañ lay jox fonds de fonctionnement c'est-à-dire que tey nekk président euh, groupe parlementaire benn un million millions la par mois groupe bi kase groupe bi pour fonctionnement rek la loolu hmm. groupe opposition bi millions pour fonctionnement rek la sans compter président de faire am vice président de l'Assemblée nationale ci hmm. le privilège as le privilège maanaam ñaari ay am au lieu de descendre, lay au lieu de 300, etc. et salaire am vice président ba tamit day am président de ko l'Assemblée nationale donc imaginez nga dajale loolu yi ak fond de campagne yi bureau yi tout ça là nga nga nga ay groupe ah qui mooy froid 2000 kuko gisul deg ngoko ko sunu liggéey ni ngi aajo ci lepp li nga xam moy climatisation mo xamé installation la maintenance réparation remplacement wala électricité bépp njàqare bu ngeen mënti am ci seen kër wala ci seen liggéeykaay Froid 2000 moma ci doy. mun nga ak ñun au 77 554 54 49. Nous mobile fu ngeen mënti ne ñu teew fajal leen seen soxla climatisation. moo xam installation la maintenance wala dépannage amul benn marque bu ñu ci jaaxal. bu leen nangooti di confier n'importe qui seen climatiseur nous sommes une équipe d'experts jeunes motivés et très dynamiques. Voir 2000 téléphone 77 554 54 49. Nous sommes à la cité Guillemey, Dakar. Vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales.